ci nekk yaa ngay def rek sa kéemtalaay kàttan ngir bëgg xam ndax lii ñu waxal Sadio Mané ndax dafa takk jabar am takkul jabar dëgg laam du dëgg wax ci keneen ku takk jabar te siiwal ko mu di Aziz Ndiaye Aziz Ndiaye day ànd naak soxnaam dem fa nga xamante ne bi moo di Dubaay muy Aïcha Rassoul ñu ngi ñoom ñaar day seenub anytime ak seenub lune de miel ña woon ci Dubaay ñu gis rek ya nga xamante ne bi tagé nañu ko complicité bi nga xamante ne bi ñoom ñaar am nañu ko di dund dëgg-dëgg bànneex fële ca Dubaay moom Aziz Ndiaye ak ki nga xamante ne bi moo di Aïcha neexul ñi wax ci Fama Thioune mi nga xamante ne bii moom itam waxam ji mujjee na am solo Fama émission ba mu defoon di ci wax naan jigéen daar warta taalal loxo jigéen dafa war a kub sëram dem liggéey bàyyi leen ñaan bi te jéem a amal seen bo daanaka ba mu ko waxee lu toll ci ñetti fan a ngi nii ku ci nekk rek yaa ngi xëy di posté waat loolu émission ba mujjee nekk lu am solo ndax waxi Fama Thioune dellu si waat rek ci octobre rose bi nga xamante ni bii Guigui Sarr doon na ko amal ngir rek dimbale nit ñi ngir ñu dépister contre li nga xamante ni moo di cancer du sein ak di sensibiliser nit ñi ci jooju nga xamante ne bi ñu ngi koy woowee cancer du sein ci gisaa rek message ba nga xamante ne bi lancé na ko ngir nit ñi gën a ci li nga xamante ne bi moo di cancer du sein moom day am na ci benn partie boo xamante bi maa ngi cay wax naan dañoo war a bàyyi góor ñi di nàmp seeni ween ngir ngeen bañ a am cancer du sein daanaka loolu moom la ñu dagg démb ak tey ku ci nekk rek di ko partager ci réseaux sociaux moom gi gi ba mu ko doon wax daf ciy jublu woon rek di jàngale ak nit ñi nan la ñu mën a fexe ba fàggandiku ci jàngoroy du waaye dafa mel ni ñenn ñi ci internet yi extrait boobu rek moo leen ci intéressé moo tax it nag boobaak tey ñu ngi koy dagg fépp ci réseaux sociaux yi ñu koy partagé di wax naan Guigui Sarr nee na jox leen góor ñu seen ween ñu nàmpal leen bu fekkee ne Guigui Sarr ab message la ci jublu woon ngir sensibiliser ngir rek ñi nga xamante ni bi ay jigéen lañ fexe mucc ci jàngoro ju bon jooju di cancer du sein liñ ci jublu rek mooy di ko café ak di ko dàqee stress waaye de li wétti wóor mooy jàngoroy cancer du sein jàngoro ju bon la te itam Sénégal war nañoo mën a fexe ba mucc ci jàngoroy cancer du sein octobre rose boobu ci laay dellu si ba tey ndax it nag xëy nañ defub jàngat boo xamante ni génne nañ ci ñetti célébrité yoo xamante ni ku ci nekk rek cancer moo la yóbbu ki ci njëkk di Fatou Kiné Dème di ab journaliste bu nekkoon fële ca TFM keneen ki di Momy Dany Guèye mi dem bërki Dembo Ndiaye keneen ki itam di Ndiaye comédien ba ñu ràññee woon ca TFM ñooñu ñëpp jàngoro ji li cancer yóbbu leen ñu di leen ñaaral suñu borom yërëm leen xaare a àjjana wax ci classe Akhlou Brick ki nga xamante ni bii rek moo di Ngaaka Blindé nee nañ classe bi day defuñu ko woon ngir gañe gagné kab Blindé wala ngir di wane ne dañoo mën a rap wala ngir di wane ne ay ay vainqueur lañ ndax kenn joxu leen ci ab trophée dañ doon wane rek ne ku leen xuri ñu gàjj la te itam Ngaaka Blindé moo njëkk a coow li ndax Ngaaka moom day mooy def foo ko sànni ab pik mu génneel la son aara boo xamante ni bi doon na ko amal ak Pape Sidi Fall ma ngay génne di ci expliquer lu bare bare waaye ma ngay wax ne ginnaaw classe bi itam amul leen loo xamante ni bi lu ñagas la lu dox seen digganteeg Ngaaka Blindé jàmm ju sax dàkk lañu séq rappeur bi dafa fekk ne rek parfois itam dañuy bëgg wane seen bopp bëgg focus ndax it nag bu ñu tàmbalee classe hip hop dañ koy bàyyi xel li lay war a saa su nekk saa yu ko jamono laajee rek ñu génn ngir fàttaliwaat sénégalais yi ne leen hip hop yi nag lu jara bàyyi xel yooyu la jamono moom fekk ne rappeur bi nga xamante ne bi mooy Dip Doundou gis ma ngi ci diwaanu Amérique nekk ca Maison Blanche moom ak Fata El ak ki nga xamante ni bi mooy coon ñaa ñoom day ña nekk rek ca Maison Blanche ngir benn projet boo xamante ni bi projet américain yi te boobu projet lu toll ci fanweeri réew ak ñeent bokk nañ ci li lay waral ñoom ñu dem teewal fa Sénégal Dip Doundou Guiss Fatahel présidenté ak Kionia ñoom gis na ñu leen ay nataal yoo xamante ni bi fësal nañu ko ña ngi ko fotowoo biir White House foofu di Maison Blanche di Palais Amérique wax ci siid Diop mi doon tëgg Bercy Cap Vert te itam rendre ci hommage ki nga xamante ne bi di Momy Dani Guèye ginnaaw ba mu ko njëkkee jàpp Momy Dani Guèye génn na Sidi Diop daal di repousser date ba bërki démboo Ndiaye Sidi Diop day ñëpp la jooyloo ci way woo xamante ni bi yëkkati na wa di wayu Mapenda Seck bu daal reprendre rek rendre ci hommage moo di Momy Dany Guèye nam ko doon woyee li lee jooyloo ñëpp wax ci Momo Wade mi nga xamante ni bi moom itam jóge na Sen TV barki démboo njaay de fësalaat nañu digganteem ak Sen TV de na tàkk waaye nag fa nga xamante ni bi ma ngi fay waaja dem donte fësaluñu ko sax Momo Wade géeyul yàbbi ci waaye wax nañu rek ne digganteem ak Sen TV daal mën nañoo jàpp dëgg-dëgg diggante bu jeex la journaliste yi na nga ko doon laaj naan ko loolu de dafa mel ni ki nga xamante ni bi moo di Mara Niass gisoon na ko ndax it nag ba ko invité ma ngi lay wax rek naan naan la fi mu nekk nii yaa fi ci say mujjanteli émission itam tôt ou tard di nga génn bërëb bi dem beneen bërëb wax ci coow li nga xamante ni bii moo xew Touba Mbacké mu di coowal Baye Fall yi nga xamante ni mi ngi jàmmaarloog ñenn ñi ca population ba mbir ma mujjee woon dégénéré ndax it nag am na benn kër kilifa diine boo xamante ni bii ay taalibeem dañoo génn di jàkkaarloog bay Fall yi nga xamante ni bii Serigne xa Bassirou Mbacké day mo leen sant ndigal ngir ñu jël lépp loo xamante ni bii rek dafa ajo ci war may tuba ngir ñu sàmm ko yooyu la Baye Fall ñoo doon jàmmaarloo ak boo xamante ni bi daanaka yëf dafa mujje woon a dégénéré kii di sëriñ Bass Abdou Khadre génn na di ci wax nee na ki nga xamante ni bi mooy xalif général des mourides di sëriñ Mountakha Mbacké ba ku ci nekk it sa jaaxle jeex ci moomu leen mbir ndax ku nekk ne yaa ngi génn di defi vidéo di wax naan Baye Fall yaag la ñu nekk ca Touba Mbacké yëf yaa ngay bëgg ëppi loxo yu bari yooyu ak bi nga xamante ni bi mi ngi am fu nekk waaye lam ci wax rek mooy ki nga nga xamante ne bii mooy xalif général des mourides du yàgg dara dinañ ko gis mu génn réglé waat ya fi wax ci mbir ma nga xamante ne bii ma nga xew ci diwaanu Pikine te ñu ci doon tudd Mamadou mbay Garmi benn communicateur traditionnel boo xamante ni dañuy wax rek naan dafa violé benn xale bu góor communicateur traditionnel boobu ñu bëri jàppoon ne Mamadou Mbaye Garmi la ndax it nag benn waay boo xamante ne bii mu ngi tudd Papito animateur moo génn rek ci réseaux sociaux yi njëkkante wax kooku day turam bi mi ngi commencé ci am ba noppi itam Mbaye la sant ñu bëri seen xel dem ci Mamadou Mbaye Mbaye Garmi ba ñu bëri jàppoon ne ki ko def Mamadou Mbaye Garmi nag ak njabootam ak ay famille génn di naqarlu moomule mbir ndekki nag mbir ma ko ko def ma ngay wuyoo turum Makumba Mbaye Makumba Mbaye di ab communicateur traditionnel bu ñu ràññee bu siiw lool ca Pikine waaye itam di animé ci benn rajo bu ñuy woowee Oxygène FM moom de moo jàpp ab xale bu am 13 ans te itam xale bu góor la ba noppi itam di ko violé waxtu wi ñuy wax ak yéen nañ ko loxo ba noppi itam dóor nañ ko ab garde à vue Mollah Morgun ma ngay génn di wax naan ñenn ñi nga xamante ne bii ñi ngi ciy tudd Mamadou Mbaye Garmi nañu arrêté ndax it nag ba ma jokkoo ak Mamadou Mbaye Garmi la ma wax moo di ne mbir ma day ni ngeen ko yëgee moo laa man mii noonu laa ko yëgee waaye nag jéggal naa képp koo xamante ne bi yaa ngi génn di ci wax Mamadou Mbaye Garmi gis nañu ay doomam génn di ci wax bay jooy ndax it nag lu leen metti mbir mu leen naqari xëy rek ñuy tuumaal sa waajur ci jooju la jëf te itam laalewu ca xamul sax yëf ya na mu demee jeexale ko wàllu làmb diggante ki nga xamante ni moo di Ama Baldé Modou Lo ñoom day seen combat bi nga xamante ni bi ko nar a amal le 5 seen dernière face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 télévision yi nga xamante ni lépp nag ak dimension lépp loo xamante ni rek mooy xeetu pause mun nga ko am ci télévision yi waaye leneen li nga xamante ni daf may neex mooy micro onde bi jëlal rek dugal tàngal su ko defee rek nga xam ni da multiplier rek dem ci clim yi xam ne nag tàngoor gi clim boo ci bëgg nag ci ay cheveux mu fa waaye tamit yéen nga xamante ni cuisinière dafa nekk li la neex moo tax desktop électro xam ni dëgg bi war daw moo tax nag taw leen ca foofu nga xamante ni mooy ci avenue Malick Sy soriwul dara direction police nationale jokkoo leen